bi fi ku tedd ki jóge ci atu 1927 juróom ci ay leeram ñu ko wuutu ginnaawam ku nekk bay nga sa waar ci yoonu murit lii ab tënk la ci seeni xilaafa sëriñ Moodu Moustapha moo njëkk diggante 1927 ba ginnaaw bi mu dëgëralee bennoow yoon wi moo sumb tabaxub jumaay Tuuba ci jamono ju tar teg waa njiitu réew mi dañu ko ne woon amuñu lu mën a indi jumtuwaay yi ba Touba ci noonu la sante taalibe yi ñu tabax yoonu saxaar gi ngir jumaay Touba taxaw bi mu fi jógee Sëriñ Fàllu moo ko wuutu diggante 1945 ba 1968 moom moo yeggale liggéeyu jumaa ji tuddee soroor bi Lamp Fall moo woote itam màggal gi ca Touba màggalu Kazu Rajab gi ñuy amal at mu ne ci moom la cosaanoo Baye Laat moo wuutu Serigne Fallou diggante 1968 ba 1989 moo yokk jumaay Touba gën a yeesal dëkk bi ngir mu gën a méngoog moo fa def itam mbooloo muy saytu waa dëkk bi ngir seeni doxalin méngoo ak li sëñ bi bëgg moom nag Serigne Abdou Khadir moo ko wuutu diggante 1989 ba 1990 Serigne Abdou Khadir ñu xam ko tam ci jiir yi moo doonoon imaamu Touba waraloon ñu koy woowee imaamu imaam. sëriñ wu mbàkke moom moo mujjee toog ci leeru sëñ bi diggante 1990 ba 2007 moom nag xilaafaam fës na ci dëddu àdduna jàngal xale yi mbay mu yaatu yeesalaat na itam jumaay tuuba ay yoon génnug àddunaam indi woon na njàqare lu yaatu ci askan wi ndax moo doonoon leer bu mujj ci sëriñ tuuba waaye sët yi ñëw ginnaawam dalalaat nañu xelu murid yi